léegi yow lan nga sabab moo waral diggante tànqamlu euh, ci directeur bi ak wala diggante état ak euh, kilifa yi nekk ci Touba lan moo sabab loolu analyse bi ma a def mooy état day calcul dañoo jóge ci ay élection mhm. depuis ñoom ba léegi loolu daj dañ ko Touba ci ay ay ay ay bu ne ñu ngi koy wax ci rajo yi bu ñu lay tuddal milliard day mel na xobi garab mhm. da nga naan ñi collecté ci xobi garab bi ñu ko jox lu ne ñu koy tudd mais lenn loo xam ne population état nag bu gisee duma yu métti yi mu duma ci dëkk bi ni ñu ñàkkee mm-hmm. day jàpp ne mu jëlal boppam dëkk bi seeral boppam sànc yi moo ko mën a may li mm-hmm. boo xam ne ak population bi mu toll nañ ko ginnaaw ñoom ba pare ñu ne léegi nañ essayé waat bu tooy tàkk fana lañ koy essayé dañ xool ba xam buñ jaaree fii liñ perte fii ba dañ ko am fi woon déet état noonu lay def ay calcul am mais mm-hmm. nag loolu ça n'a rien à voir ak bi daa am nañu doxee loo fi mën a def lu mu baaxal baaxal baaxal population population dañoo am koo xamante ni moom rek la ñuy déglu muy xalif général de mur kooku lu mu amul accord rek population bi suur nañ ko boo defoon dëkk bépp assainissement sëñ bi génn yëguma te bëgguma population bi suur nañ ko Touba noonu lay dox bokkut ak feneen boo demee Linguère dafa am réalité dem feneen dem feneen dem feneen loolu état ko yilif fii nag dafa nekk trente mille hectares trois cent kilomètres carrés quatre vingt quinze villages du titre foncier Sénégal gépp Touba fi fii titre foncier ci ci dëkk yi commune yi ngay yi ngay dégg Sénégal gépp amul benn commune bu fi titre foncier problème mu assainissement nag war sa jaaxal Touba parce que bi mu amee mbënd Touba képp ci àdduna Sénégal gépp moo fi yëkkati un milliard dimbali état du mhm. defal Touba Touba daf ko ciy jiitu. Mhm. jënd assainissement Sénégal gépp Touba ko ci mas a participé sëñ Sidi Moussa yëkkati un milliard ci am ba def ko ci. Mhm. kon jàpp naa ne bu ñu dee def problème mu problème mu yëg na maa yëgu ma war sa doon seen problème. dañoo war a wéy ci kilifa gi jox ko responsable bi koo xam ne bu demoon dama muri yëpp wuyu si tey ji avion dangay xam ñëpp dañ départ wuyu si ko kooku ko war a jox mooy kàddoom akub ciram hmm. nit ki nag boo ko xañee kàddoom akub ciram defaloo ko ta doon defalatoo ko dara euh, mu mel ne mu mel ne kon état su doon tànqaam li dafa war a tànqaam li ñi nga xam ne ñoom la fi teg te mooy ñi ko fi nekkal ay ministre conseiller ak ay ay député mag yooyu waaye kilifa yi ñu nga xam ne moo leen yëg di fay salaire man mm-hmm. na leen a tànqamlu DG yeeg comme député bi fi am ak ay ministre conseil yooyu nga xam ne moo leen di fay man na leen mm-hmm. tànqamlu mm-hmm. mais nag kantaan ñi nga xam ne nag ñoo yilif ñooñu ma tudd kooku waru leen tànqamlu état amut lu mu mën a def ci àdduna quatre cent six milliards de autoroute bi mu koy def dafa ñëw fii joxe laaj ndigal tàggoo te autoroute bi ak bor la dafa ñëwaat xalifa bi euh, euh, inauguré loolu yaakaar naa ko mën a jàppoo beneen projet booy mën a indi loo xam ne mutu trente milliards da war ñëw jël si ndigal mhm. assainissement bi naam baax na mhm. commencé ca cat la commencé fee ci yem waaye nag ñoom fi ñu la tànnal ne la commencé fa defal lay sa responsabilité mhm, ndax bu bénéficié bu baaxee population bi koy dund bu dee tëli ñoo koy jëfandikoo bu dee courant ñoo koy jëfandikoo bu dee leneen bu dee leneen bu dee assainissement yi noonu